Habib baa ngi wax ak ñoom laaj na leen ku nekk ba xam pare nga ci lewaatoo Zambala à gauche Malika à droite mbokk Malika lañ jàkkaarloo Zambala moo wan ginnaaw général Malika Zambala eh Zambala général Malika jël na tànk ko léegi mu rëcc demi final poids lourd beneen côté bi maa ci am ki nga xamante ne mooy caatu waalo Général Malika Zambala lamb ju nara neex a ngi noonu Général Malika Zambala Général Malika Zambala Général Malika Zambala Général Malika Zambala Général Malika ëñ na ko di ko manœuvrer daan na ko Zambala daan na Général Malika Zambala daan na Général Malika Zambala plaqué na Général Malika mu daanu